loolu ñu war a def te bàyyi seen caaxaan yi def nii. doctorat en philosophie de l'économie nga tey noo jàngatee tolluwaayu Sénégal ci wàllu koom jafe-jafe yi fi souligné bëri na jamono yële notamment le premier ministre ak li ci topp ñu wàccee notu Sénégal euh, ci euh, institution de notation bi di mu Moody's tey yow ban lecture nga am ci tolluwaayu économie bu Sénégal. waaw d'abord euh, sous l'angle politique routine la boo seetloo Abdou Diouf bu mu ñëwee dafa traqué naan lekk nañu xaalis bi. kees yi amul dara. les caisses sont vides. bu Ablaye Wade ñëwee même discours la tenir sénégalais yi dara changé ci boo jëlee discours Ablaye Wade bu muy jël pouvoir bi 81 xaw ak discours ma euh, Macky euh, Ablaye bu muy jël pouvoir bi lu ci changé ak discours Macky Sall bu muy jël pouvoir bi naan gars yi sàcc la ñëpp dañ leen di jàpp ak dañ leen di tëj. dara changé ak discours régime bii nga xam ne euh, ñu ngi door a ñëw amul lu changé léegi nag. Euh, entreprise société de notation yooyu ñoom dañuy évaluer di noter seen notation dafa am solo parce que investisseurs yi ci la ñuy basé wu pour mën a investir ci dëkk bi xool risque bi fu mu toll. Mm-hmm. c'est tout à fait normal changement bu amee de régime investisseurs yi dañuy téye seen xaalis di xool ñii fañ fa leen jëm ak lan mooy seen politique parce que ñoom it xaalis lañ yor te bëgguñu koo yàq dañoo bëgg mu ful te buñ koy lebal dañuy xam fuñ koy lebalee. te dañuy basé wu ci notes yi. pour leble ko parce que risque bi mooy tax ñu définir taux d'intérêt bi mooy tax ñu lebal dëkk bi donc notation yooyu c'est tout à fait normal bu ñu jógee ci ay élections jëm ci benn période bu xaw a difficile c'est tout à fait normal que risque bi élevé. donc notation bi man awma dara lu ma ci wax dama jàpp rek ni c'est c'est une chose normale bu ñu ko defuloon sax mu ngi. mais nag ça pas dire c'est plus grave parce que premier ministre dafa ne dañoo falsifier les chiffres de finances publiques. waaw fu ñu waroon a waxee taux de croissance bi par exemple cinq la ñu ful ko ba 10. Euh, loolu déficit budgétaire bi itam ñu nëbb ci li nga xam ne moom mooy dëgg boru Sénégal itam euh, li ñu ci wax weesu na ko loolu taxoon mu am peut-être différence entre li ñuy annoncé ak li askan wi di sentir yàgg nañ fi wax taux de croissance yoo xam ne par exemple ñi dañ naan sentiruñu ko l'économie euh, doxul. man bu ma doon conseillé gëm nga yooyu. man bu ma doon conseillé premier ministre. révélation révélation yi parce que moo ñu entraîné ci conséquences yi. bien sûr yooyu da ngay jëf te bañ a wax. def nañ doolu demal jàppi ñu ko def xam nga fu ñu dëkk xam nga fu lu ñuy def te ma jàppale nga dugal leen ci kaso mais tam amul benn devoir de vérité envers askan wi wax leen li xew wax leen fi mi toll période bu mu ko waxee parce que situation bu métti nee na ci lañ jëm donc il faut que nit ñi xam ko bu méttee ñu xam ne loolu ma ko waral période bu mu ko waxee période campagne électorale la da nga jàpp ne politisation politisation la c'est évident mais bu faloo xam na lépp premier mois les deux premiers mois xam nañ lépp ñu bàyyi ba période bi ñu wax ko budget ñëpp xam nañ ko ñoom ñoo koy gérer inspecteur des impôts la finance la nekk am na ministère des finances bu ñu ñëwee dañ leen defal état des lieux état des lieux bi. mën ta weesu deux mois ministère bi moo nekkoon euh, programmation budgétaire sous le régime de Macky moo tax nag moo tax nag yii buy am parce que dafa am réputation Sénégal investisseurs yi buñ ñu déggee nii sénégalais yi dañuy falsifier. Mm. ay foo la ñuy def ba pare kenn jàppu leen. kenn jàpp leen waaye ñoom dañuy téye seen xaalis bëgg ñu dugal seen xaalis boo xam xam nga loolu jarul xaar mais dañu wax dëgg jarul xaar xam nañ ñu ko def xam nañ fu ñu ne mais jarul xaar. ñu ngi campagne boobu ba léegi kañ lañ jàpp. boobu ba léegi kañ lañ jàpp ñu ngi koy wax ci télé bi di wax nit ñi ñun moom ñoom lañ jàppale woon ñoom lañ voté woon peut être. Euh, waa Pastef waa Pastef parce que dañoo bëggoon changement parce dañoo gis nit ñi def nañ fi 12 ans. Mm. nit ñi amuñu féex ci banque yi amuñu féex ci institution de ñu féex ci assurance yi parce que assurance tey boo xoolee euh, dangay yor sa oto état forcé la ne da ngay boo assuré mu yónnee policier mu daggal la contravention waaye bu la sinistre arrivé ngay wër di daw ci gannaaw assureur bi pour mu fay la ana état ana état dangay ngay continuer di préfinancer di wut sax pour def constat te te dara wóor la ne assurance bi la fay gis nga ñii xam nañ li xew ci dëkk bi am nañ toutes les données nañ bàyyi wax ji parce que wax ji li muy yàqal Sénégal moo ëpp lu mu koy defaral parce que Sénégal yorul boppam daanaka dañ koo yor ñun ñu ngi ci esclavage financier ba léegi ñooñu noonu seen i financement pour ñu déggee yii dañuy tiit duñ ko fa dugal dañuy téye seen xaalis parce que dañ naan dëkk bii ay faussaires ñoo fi nekk dañuy falsifier te bu ñu falsifier dara du leen ci fekk wax rek mooy am waaw amee danga nga leen waroon jàpp tëj ci kaso ba pare léegi xam nga fi Sénégalais di xam ne dañoo dañoo falsifier mooy ci procès ba yow état jëlal dossier yëpp jox ko procureur. indi say indi say preuve ak lépp ñu jàppaleen dugal leen ci kaso bi ñoom ñuy yuuxu mais ku ñëw st procès bi di xam gars yi lu ñu def mm-hmm. journalistes yi dem couvrir ko ne gars yi ndekete lii ak lii waaye yow ngay wax kese ba pare jàppoo kenn mm-hmm. waaw après tamit après élection yi tamit dootoo jàppati kenn parce que jàpp bi heure bi la ah dañuy wax dëgg parce que ñoom bu ñu xasee ba falu député dañuy am yenn immunité ah dañuy naqaree jàpp te dañuy am moyen défendre dañuy waxante dëgg nañu bàyyi wax ci liggéey bu dee mënuñu jàpp gars nañ leen bàyyi te bañ a wax mais bu ñu dugal Sénégalais yi ci ay débats yoo xam ne amul benn sens parce que c'est des débats oisifs dañu waxante dëgg. diw sàcc na diw sàcc na mais Macky Sall loolu la wax. dafa ñëw ne gaa yi sàcc nañu mu xaw a am ñu mu ci jàpp nax leen dugal leen ci kaso bi génne génnewaat leen mais Ablaye Wade noonu la defoon waaye ñun dañoo woote rupture dañ ne changement où est le changement wan ma changement où se trouve la changement montrez-moi le changement mbënn baa ba léegi lépp ngi fi man fa ma jóge tey nee naa la marche arrière laa génnee sama buntu kër. presque sa mètres yoo xam ne marche arrière rek sama oto laa génnee parce que lan ndox amuñu fu mu jaar suñu doom yi di jàng di paccax ci biir ndox bi di dugg dem di di wokk seen i seen i seen seeni seen i seen tubéy pour mën a dem daara cu daara bu bii la te si dak ndakaaru bii la bokk département bii la bokk département yi Rufisque bii la bokk mais yooyu mooy priorité mais diw sàcc na mais loolu est ñoom sàcc boo xam ne mënu ma ko jàpp parce que est-ce que ñoom mën nañ ci dara parce que dégg nañ ministre mu ne du seen nawet ça veut dire que peut-être prévoir ñu woon ay mesures wala euh, aveu de faiblesse la mënuñu ci. en réalité waaw nguur moom boo mënul rek danga war a bàyyi quoi nguur jarul xëccoo dañ la naan mën nga yow yaa taxaw ne mën naa Sénégal yëpp d'accord ni mën nga ñu jox la mais boo nee mën nga ba pare mënatuma ko période bi wala mënuma ko wala déwén laa koy def ak yooyu sénégalais waxante woon ko ñoom loolu da nga leen ne jox leen ma ko léegi nii ma defar ko. mais jox la ko dégg ngay daw responsabilité naan du sama budget des dettes Sénégal xamul loolu comprendre loolu man langage boobu mënu ma ko comprendre man chinois la ci man man xam nga li ma xam mooy bañ laajee dañ leen a jox ñoom ñoo ne mën nañ nañ wane ni mën nañ contre ma leen nag parce que bu may wax yéen yaakaar ne dañu la contre mais man dëgg ma ñor contre ñu leen mais yéen a bu leen jooy sénégalais yi dañu am ci yoon confiance jox leen réew mi pour ngeen tabax ko jël leen ay nit ressources yaa ngi fii boo leen jëlee nag ay délinquants financiers ay tappalekat ay tricheurs ak ay incompétents jël leen tab leen ay poste de direction tab leen ay poste de ministre pour ñu defar seen politique seen politique mën naa baax de mais njëriñu Sénégal du ci ne xam nga njëriñu Sénégal fu mu ne jël leen ressources yi yi fi nekk mooy compétence yi fi nekk xamu leen politicien la ñàkk euh, wala du politicien ngeen jël ko teg ko ci à la place qu'il faut pour mu liggéeyal Sénégal parce que doomu réew mi la jël leen ay loxo yu set pour ñu liggéeyal Sénégal Sénégal yëpp Sénégal bu ñu defee noonu daanañ nangu bu méttee dañ ko muñ Sénégal dafa mën a muñaa ah. Sénégalais loo ko def mu ne la yàlla baax na Sénégalais mooy koo xam ne loo ko teg mu ne la yàlla baax na Sénégalais bu demee ba génn ci mbedd bi di ci jaay bakkanam rek. xamal ni li ko teg métti na. alors xanaa bi ngay wax sànq euh, dossier ONAS bi nga doon def allusion.